li nga ma laaj nag dina ci dugguma ci woon tontu waaye dinaa ci tontu ndax li waral ñu war cee tontu mooy comme ni ñu bokkee ci sëñ Touba comme ñëpp euh, ñun dañoo bokk ci sëñ Touba ñaari yoon. kon yaakaar naa ne ay jëwriñ lañ ci yoon bi ginnaaw bu ñu nekkee taalibe ba noppi yoon la boo gisee loo xam ne nii dina indi jiixi jaaxa wala xel ñaar ci yoon bi buñ la laajee sañ nga cee tontu ndax ci yoon wi lañ bokk du ñi ko ñi ko bokk dañoo bari loolu nag euh, yaakaar naa ne du lu fi bees yàgg na fi yàgg na fi lool euh, lima ma leen ñaan daal ak li ma leen di soññee. en tant que mbokk taalibe mooy nañu bàyyi xel ne yi ñuy boole ci yoon wi yëpp bokkul woon ci sëñ tubaa boolewu ko woon ci yoon bi euh, boo xoolee ci taawu sëñ ci taawu sëñ mag bi euh, Cheikh Modou Moustapha ba ci Cheikh Muxtada mi nga xam ne mooy caatam amul benn lu fi am lu mel noonu lu fi mës a am njaboot gi yëpp benn lañ euh, waa doomu sëñ Tuubaa sax boo leen musaani fekk da ngay jàpp ne ki ci gën a ndaw mooy sëriñu ki ci gën a mag loolu nag li ko indi mooy ak déggoo loolu mel noonu musul am ci yoon murit kon bu fekkente ne dafa duggee feneen fi nga xam ne jógewul ci njabootu sëñ Tuubaa loolu yaakaar naa du ñu déranger trop li ñu ciy déranger rek mooy mm, xajamal gi muy xaw a xajamal yoonu murit ndax loolu xëccoo la euh, Sénégal nag li fi xew dafa am lu fi am lu bees loo xam ne nii lu lu ñu mat a bàyyi xel la luñu wara xex la mu juk fi moy lu liñuy wowe euh nañuy masla masla bu ëpp baaxul masla bu ëpp baaxul señ touba limu mu ak limu dacc ak ni mu sonné yaakaar naa ne ñun ñi nga xam ne waxuma la ñun ñi ñun ñu bokk ci moom rek ñun ñu ay sëtam waaye ay taalibeem war nañoo mën a xeex lu bari ba li mu liggéeyoon bañ a yàqu tey ndax jàpp naa ne képp ko nga xam ne gis nga ñuy def naka su dul noonu ci yoonu sëriñ bi war ngaa taxaw war ngaa mën a taxaw xeex lool ku ne xam ne ni sëñ Béthio lu mu liggéeyal sëñ Touba macha allah liggéeyal na sëñ Saliou lu ne def na ci yoonu murit lu ne ñu ngi koy ñaanal fa mu tëdd suñu borom yokk ay leeram. Euh, loolu nag dinaa ci dinaa ci dinaa ci wax tuuti ndax dama jàpp ne euh, ñi nga xam ne dañuy wuyoo. taalibe ñoo xam ne ñoom ñoo toppoon ci ginnaaw siñ Cheikh Béthio ñi nga xam ne dañoo dañoo wàcc yoon li ma leen di digal daal ak li ma leen di conseil mooy ñu tegu ci yoon waaw ñu tegu ci yoon comme ni ko sëñ Muntaxa waxee comme ni ko kilifa yëpp bëggee mun taxa moo jiite yoonu murit yëpp kooku yaakaar naa ne bu waxee dañ ko war a jëfe rek képp ku nga xam ne nag sëñ bi dafa wax te jëfewoo ko pour man nekkoo ci yoon ndax liy yoon mooy ñu topp li sëñ bi wax euh, li sëñ bi wax nag moom bu ko waxul ñëpp xam nañ ne lan moo jaadu. góor a war a jiitu d'abord avant jigéen ñu topp ñu koy waxee sëñ Xaadim sëñ waaw sëñ Saaliw ñu topp ko topp ko comme ni ñu toppee woon sëñ Bécco waaye ay jigéen ay jiital yi jigéen man de loolu mosuma ko gis wax dëgg yàlla mosul am ci yoonu murit waaw doomu sëñ Tuubaa yi kenn gënu leen a sëñ Tuubaa du ci du caaxaan. lii nii mosuñu koo def kon keneen bu jógee fële def ko fi loolu bokkul ci yoon bi waaw bokku ci waaw li ma ko xamal mooy li mu defal sëñ Touba liggéeyal ko sëñ Saliou waaye nekkuma koo xam ne daan naa ko fréquenté wala ma fa daan dem waaye li nga xam ne gis naa ko teg naa ci sama bët en tant que taalibe sëñ Touba en tant que bokk ci yoon wi di àtte dëgg li ñuy def nii teguñu ko fenn ñi nga xam ne dañoo ci yoon nañ jaar ci yoon loolu koy leer na waxuma ñëpp mais ñi nga xam ne jaaruñ ci yoon nañ jaar ci yoon. ndigalu sëñ ñom ay talibé sëñ bamba lañ sëñ touba bayyi fi njabot sët bayyi fi ñuko ko lool est-ce que mës nañoo gis lool ci njabot sëñ touba mësul am jàpp naa ne ñoom bu ñëwé né ne touba mo leen taxaju dañoo wara ray ci sëñ touba roy ci ak njabotam ñom wa ko sembé kon loolu wax yalla rafet lu wuñ ko di leen soñé té di ñaan kilifa yi ñuy waxtaan. ndax dialogue lu am solo la surtout mbooloo bu toll ni yoonu murit dañu war di waxtaan seen biir bàyyi maslaa bu ëpp bi tey waxante dëgg ndax dëgg rek mooy njëkk te mooy mujj amal baatilu wa ina ala fa zaaxiqun wa saaxilu donc dañu war di waxante dëgg bàyyi maslaa bu ëpp bi ndax bëri na ay jafe-jafe yu am ci yoon wi tey maslaa bu ëpp a ko indi li may wax nag bu ñu demee ba ci biir wala borom xel yi bu ma déggee dinañ xam ne li may wax ni lu am la donc nañuy doxal dëgg da bàyyi maslaa beeg caaxaan beeg yooyu yëpp amu solo te liggéeyal sëñ bi nangoo nekk ay taalibe ba nangoo nekk taalibe nag dangay nooy nepp lépp lu ñëw rek da ngay nangu mu dal sa kaw taalibe kenn moomu leen lépp sëñ Bàmbaa ko liggéey salaatul lazi fi kulli sahrin wa fi safar hamani ala mahim ma al safar